xam sa démb xam xam sa démb xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ñaari kàngam yoo xam ne doomi Sénégal yu ràññeeku woon lañ keroog bi Sénégal waree moom boppam ci tubaab bi. ñaari doom yooyu mooy kan ñaari doom yooyu mooy lamin géey Lamine géey ak kan Lamine géey ak uh, Valdiodio Ndiaye ñoom ñaar ñëpp mën nga leen a wooyee maître ndax ay avocat lañ Lamine Gueye moomu nag ak maître Valdiodio njaay bu kenn fàtte ne keroog ñaar fukk fan ak juróom-benn bi nga xamee ne général de war na fay ñëw ngir ñu wax ba xam Sénégal day laaj boppam wala laajul boppam fekk fi Senghor fekk fi Lamine Gueye anañu booba Senghor mi nga xam ne moom. moo jiite union progressiste sénégalaise nekkut Sénégal Mamadou Dia mi nga xam ne mooy président du conseil du gouvernement nekkut Sénégal keroog parti politique yi amut bu des ñëpp jóg teg kuréel guñ tuddee comité de défense. comité de défense boobu ana ñu ci newoon parti yu mel ne PAI ana ñu ci newoon parti yu mel ne union progressiste sénégalaise ana ñu ci newoon parti yu mel ne parti du regroupement africain PRA ñooñu ñu jiit woon ànd ak syndicat yi. syndicat yooyu amoon na bu ci tuddoon union générale des travailleurs de l' Afrique waaye nag gone yi de suñu woon ak jigéen ñi fédération étudiants yi nekkoon France ndajem étudiants yi nga xam ne ñooy Afrique soow jan yi nekkoon ci université Dakar ak conseil jeunesse Sénégal ak nag mouvement des femmes du Sénégal ñoom ñëpp a jógoon takku keroog nag De Gaulle loola ko jaaxal ba mu mer sax naan leen yéen ñi nga xam ne yéen a yëkkati yëkkati yi li ma bëgg ngeen xam ko ne bu ngeen bëggee indépendance jël leen ko tey le 28 septembre ngeen wax li ngeen bëgg moom seen bopp maa ngeen ànd ak ñun ci kuréel gii di tudd communauté franco africaine. wax naa leen ne Senghor ne wu fi woon keroog wax naa leen ne leen Mamadou Dia du wu fi woon kon nag maître Lamine Gueye sénateur magoon ci politiciens yi fi woon moom message wu député yi moom moo ko liir keroog. waaye wal Njaay mi nga xam ne ci turu conseil yu gouvernement wu bi moo waroon a wax keroog la wax wax juréy ja ma nga naan général de amut xel ñaar amut waaj Sénégal politique leer na ñetti mbir dong la bëgg indépendance moom sunu bopp boolook Afrique te ñu ànd lëkkale suñuy réew ñu doon menn réew waaye discours wal boobu li muy ànd ak i teggin lépp discours la boo xam ne kenn du werante wax ja ndax ma nga naan ko gouvernement wu Sénégal moom de li muy wax lu leer la waaye bala mu ko wax day xam texte bi ngeen bind kayit yi ngeen bind lan moo ne ci biir. te bu boobaa it li nu bëgg rek mooy li askan yu bëgg. te mu leer ñu ne bu 28 septembre jotee France ak Afrique ku ne da nga moom sa bopp ñu lëkkaloo bu ñuy ànd ànd ca noona waaye wax joojoo ko rëy 28 août 1958 loola tax bis booba kenn du ko fàtte. mu doon taarix boo xam ne dugg na ci taarixu Sénégal waaye nan dellu si ci jaar-jaaru ñaari jàmbaar yooyu maître Lamine Gueye la ñuy njëkke maître Lamine Gueye mag 1891 la judd ca Médine fële ca Mali waaye nag bàyyi moo fa ne woon de Birahim Gueye doon boroom alal doon jaaykat bu mag fa ma nga nag moom Lamine Gueye fee ca Ndar ca Sénégal ginnaaw bi mu jàngee ba am brevet élémentaire 1907 Lamine Gueye nekk naa ab instituteur ca Bakel nekk na ca Saint-Louis ca Podor ak Kaolack 1916 nag la dem France foofa nag la amee baccalauréat waaye ma ngi woon ci biir l'armée gi lan la ci teg mooy 1920 1921 mu am licence ak doctorat lépp jëm ci droit kii mooy maître Lamine Gueye maître Lamine Gueye moomu bi mu ñibbisee Sénégal ana fu ko yóbbu camp du école William Ponty bu Gorée kay mu nekk fa professeur di jàngale mathématique booba nag ñan la jàngal. kàngam yu mag yi la jàngal Félix Houphouët-Boigny bu Côte d'Ivoire Mamadou Konaté bu Mali Jean-Félix Tchikaya bu Congo nga xam ne ñoom ñëpp mujj nañoo dooni député sax ànd ak moom ca assemblée nationale française Lamine Gueye nag dafa teel a bàyyi njàngale mi doon avocat kon bu nu jàppee Lamine Gueye mën nañ ko topp ne li ko Blaise Diagne digaloon def na ko ndax def na diplôme supérieur droit privé 1929 maître Lamine nekk na avocat ca île de la Réunion ca atum 1931 la ko door boole nag liggéeyam ak it am njàngam ba tax mu am 1933 di diplôme bu mag ci droit romain ak histoire du droit la ko amee 1933. ginnaaw bi mu toogee Réunion nag lu yàgg ak France nekk fa magistrat Lamine Gueye ci la ñibbi si 1940 ci Sénégal nekkaat avocat nag di xeex ci politique bi. ci biir parti socialiste bu Sénégal ak section sénégalaise bu SFIO 1945 nag ca la nekk maire Dakar nekk député wu Sénégal ca assemblée nationale bu France. lii mën nañ ko jàpp ci maître Lamine Gueye avocat bi nga xam ne avocat Ndar la bi nga xam ne moo xeex ba jigéen ñi nekkoon ci quatre communes yi 1945 6 juin ñu war a mën a woote kii nag mooy maître Lamine Gueye. mi nga xam ne nekk ne maire Dakar 1945 1961 nga xam ne mooy président assemblée nationale du Sénégal bu njëkk 1960 kii mooy Lamine Gueye mi nga xam ne moo génnoon àdduna 1968 fekk ko lépp mu ngi yor céeru àddunaam di ko doxal waaye ginnaaw moom mën nañoo jàll ci wal jooja Njaay kii nag boo ko tuddee tudd Kaolack kii boo ko tuddee rek tudd 28 septembre 1958 boo ko tuddee rek tudd ko juddoo woon Rufisque 1923 wal joojo Ndiaye kii moo màggee kaw Kaolack jàngee Kaolack mottalee am njàngam lycée Faidherbe bu Ndar kii moo am bagam waaye ba mu koy am ma nga ànd kàngam yu mag di Cheikh Anta Diop di jóob Diop. maître joojo Ndiaye laa bëgg a waxtaanee 1947 mu dem defi droit ak philosophie ca université Montpellier. 1951 mu taxawal teesam bu mag ba ne lan mooy doon ak ma xeej ci gox bi nga xam ne làkk tubaab la am daal di cay am nag mention très bien ànd ci ak félicitation di jury loolu kenn mësu koo gis mu ñibbi Sénégal nag dem toog Kaolack ga mu màggee ñu daal di ko fay fal mu bokk ca conseil territorial 1952 1957 ñu joxaat ko ko kii nag mooy maître Valdiodio Ndiaye ci politique nag ñëpp xam nañ ne mi ngi woon ci ñi jiite woon bloc démocratique sénégalais di BDS mujj sax mu àgg ba ci bokk ci union progressiste sénégalaise UPS waaye 1957 ndaw lu rëy at mi jiitu De di fi ñëw mu nekk ministre de l'intérieur ci conseil bu njëkk ci gouvernement bu Sénégal boobu nag loi cadre moo am waaye gis ngeen bi indépendance amee it dafa wéy di doxal cër booba loola moo tax ñu jàpp ne moom mooy bàyyu réforme administrative bu 1960 bi nga xam ne ci la Sénégal amee juróom-ñaari région yi am ñaar fukki cercle ak juróom-ñett ak juróom-ñeent fukki arrondissement waaye bu leen fàtte nag ne 1960 ca lañ ko fal mu nekk meeru Kaolack moom wal Waldiodio Ndiaye Valdiodio Ndiaye moomu nekkoon ministre nag des finances 1962. booba Senghor ak Mamadou Dia jàmmaar law gunnu ndax booba Senghor mooy président de la république Mamadou Dia di président du conseil des ministres Sénégal génn ci fédération du Mali. seen diggante nag métti lool député yaa nag Senghor nag ne dañuy def motion de censure Mamadou Dia ne du fi am woo ñu tëj assemblée bi ne kenn du ko fi def Senghor daa di mer. jël Mamadou ak ñi mu àndaloon booba wal jooja ci la bokk tëj leen ne Mamadou Dia dañ koy tëj giirug dundam wal jooja Njaay nag 1963 ñu tëj ko moom ñu mel ne moom ñaar fukki at lu mat fukki at ak ñaar tëdd na ko kaso ca Kédougou ca tàngoor wa waaye booba li bu bëggoon mooy ñu xaddi waaye wal jooja xaddi wut ba ñu yeewi ko génnee ko kaso mu ñëw nekkaat avocat fii ci dakaar wal jooje Ndiaye moomu 1981 bi nga xamee ne Abdou Diouf ubbi na ne kum neex sampal sa parti ca la ànd ak Mamadou Dia ñu def mouvement démocratique populaire du MD MDP. ca la ànd ak Mamadou Dia wal jooje moomu nag 1981 ca la ànd ak Mamadou Dia bi Abdou Diouf ubbee kenn ku ne am sa parti bopp ñoom ñu am mouvement démocratique populaire MDP waaye ab diir lañ ca def mu génn ndax jubawul woon ak Mamadou Dia. loolu tax mu jàppale Abdou Diouf bi Abdou Diouf di wutaat nguurug réewum Sénégal wal jooja Ndiaye 1984 ci la génn àdduna fii ci hôpital principal ña ngi ko denc Kaolack nag ca wetu ay waajuram wal jooja Ndiaye ginnaaw bi mu génnee adduna réewum Sénégal sargal na ko ñu def ko nag chevalier dans l'ordre national du Lion ca atum 2000 lii mooy jaar-jaar bu gàtt bu wal jooja Ndiaye lii mooy jaar-jaar bu gàtt bu maître Lamine Guèye ñaari avocat yi tertu woon de wax ko lu ko neexut am fu la am fayda ba tey seen taarix gone yëpp war koo xam loolu moo doon nettali tey bi xam sa démb xam sa tey wal jooja Njaay ak maître Lamine Guèye xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique La Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Goethe Institut